merci point point d'exclamation mu doon moo boo xam ne bu tuuti la waaye bu am njëriñ merci au président de la République du Sénégal waaye merci à tous les Sénégalais ah, encore une merci à nos lions Malaw ñu ngi nuyu. waaw mi ngi noonu dañuy sant yàlla bu baax a baax. di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur. te xam ni tey tout le monde toute la population tous les ethnies tous les confréries du Sénégal on est tellement content aujourd'hui très bonne question euh, di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi may suivre à travers sama compte yi Snap Malo Pikine Instagram maa ngi leen di jox seen wàcc waaye ndax tey. non defal ndànk ndax ñoom ma def ni ma mel. di gërëm le président de la République le meilleur président de l'histoire du Sénégal man maa ko wax. léegi léegi yow tax nga wax loolu. très bonne question mon ami parce que <laughs> àdduna lépp continuité la moom bu fi jugee. xaw ma kañ la fi jóge bu fi jugee am na keneen koo xam ne mën naa ñëw toog continuer mais le président de la république moi je suis pas un politicien mais je suis un citoyen qui regarde le pays qui voit les développements du pays qui observe waaw ba pare ma nit ku soxor su ma gisee lu rafet dama naan lii rafet na Matar Ba c'est le meilleur président c'est le meilleur ministère des du de l'histoire du Sénégal dis-moi pourquoi. pourquoi ok très question ma ami. parce que tey li xew Sénégal tey boo yeewoon ñoom la Joor wala nga yee ñoom Alburi Njaay wala nga yee ñoom Maba Jaxu Ba wala nga yee ñoom Damel Samba Yaay Fall wala nga yee ñoom ñoom Lumba Mbaa wala nga yee ñoom ñoom ñoom euh, Nelson Mandela gaañuwul. kon boo yee Nelson Mandela yee ñoom Blaise Diagne ñoom Lamine Guèye yee Cheikh Anta Diop yee Cheikh Anta jóob daal di yee Senghor woo Abdou Diouf omat Ablaye Wade ni leen tey Sénégal am nañ terre buy daw Sénégal tey am nañ ay autoroute à péage maanaam dem beeg dikki bi bi gaaw na. ba pare ne maa ngi ñëw. ñëw ci arena basket bi nga xamante ne nii c'est le stade de de de tout le tout monde ñu ne déeta waay ñu teg ci Coupe d'Afrique ñu ne déeta waay tey ñuy intégré suñu stade olympique. Sénégal tuddee ko Ablaye Wade loolu boo leen ko yi boo leen ko waxoon tey duñ ko gëm Sénégal nii boo boo bëggee dégg xam lu fi manqué seulement la neige neige rek moo ñu manqué. neige Sénégal nii neige rek moo manqué ak coupe du monde. neige ak coupe du monde. parce que nii on est on est selon man li may observé man non pays bi mi ngi en voie de développement. naa ne Sénégalais mais lu nga wax nii lu nga def nii dafa dafa dafa dafa dafa jafe si Sénégalais maanaam Sénégalais mën nañ critiquer mën nañ critiquer lool mais ku def pour ñu la jaajëf c'est tout un problème. te boo ko defee ñu la politicien waaw mais c'est le pays de yaa xam ne nag pays yi am pays yoo xamante ni le méchanceté sera à 70 pour cent le bienfait 30 pour cent. la. waaw day am dëkk yu mel noonu nag. damay laaj ndax Sénégal noonu la woon. xam nga Sénégal cin buy baax la jarul tëj. kuy génn sa morom da bugg bëgg a xëcc pour nga dugg ci mais maanaam nga gis tey Sénégal buy développé nga gis tey maanaam ñu xool kat Sénégal kat xool ni mu mel un président de la République musuma gis Macky Sall xamante wu ma xam naa mun na maa xam waaw musuma koo gis musuma lekk xaalisam mais un président de la République ki est né après l'indépendance yaa ngi dégg il est né après l'indépendance mais il a pris le devant il a fait ce que les autres présidents la République n'ont pas Sénégal dëgg mais benn xam benn question bu ñu jógee foofu xam ne li nga wax lépp histoire la. pour mu leer moi je un artiste comédien je suis pas un politicien. pour mu leer j'ai vu je suis seulement un un citoyen sénégalais qui observe. observateur observateur admirateur. mais tey da nga ñëwaat da nga ñëwaat tey jii wax nga ko mais tey da nga ak beneen fànn maanaam bu la gisee lii carte de presse yaa ngi yor sinap xanaa temps yi da ngay waaye congrès ñoom ñaa ndax temps yi maa président ngay laaj mu toll nii. boobu ngay dégg nag ñaa moo may teg ci code de. ba da ngeen ko loo bari. waaw sama waaye sama gars moo daan dugal fii waaw noonu la demee nag. Maria si may sa bige may sa bige maar. bi ma jàppee ba tey dellu ma ginnaaw. wallaay gis te dina mel ni doxatu gilam. <laughs> <laughs> lan mooy mel ni loolu man bu ma jaax tur bi ngeen li ma la waali dina mel ni doxatu gileem. lu tax nga wax loolu. parce que gileem bu doxatee kaw la jëm danaan push ci kaw la jëm. ñeneen ñi nag mun nañoo nekk ay pet de rat nga xamante ni waaw ay chien. instant yii xaw ma ma lu muy def nii ma day classe yeneen booy. parce que dégg nañ ah. dégg nañ dafa daal dégg nañ sa waal waal am na ñoo xam bu leen tuddee sama booy la gosse je l'aime très bien est-ce que ñooñu ngay waxale yow. ñii nii Rolls Royce xam naa dina ma utal benn oto bu ndaw ma tolloog booyi yi daal des fois ma klaxonné leen.